Assalamualaikum gars yi nuyu naa leen dal leen ak jaamu ci sport 220 ans Seny Dieng l'international sénégalais mom nak dafa daal di marqué tay benn bal bo xamné mo sauvé équipe bi di Queen Park Rangers ci défaite bo xamné ne daanaka jëloon nañ ko seen ak Sunderland tey jii QPR mu Queen Park Rangers dañu doon football ci championship bu Angleterre waye nak ñi di Sunderland dal di leen jitu ba ci 92e minute manam bobu jongante gi jeex presque ki nga xamante moy mooy Seny bi nga xamné mom moy mooy golu kat bi manam gardien la di kat bi dal di bay li nga xamante moy ay kaawam dem mbëkki voilà bi ñu centré mu daal di tëb mbëkk bal bi mu dugg loolu sax moo may équipe am boobu di Queen Park Rangers ñu daal di mu nekk bii boo xam ne doy na waar fa mu ko dugalee sauvé li nga xamante ne mooy équipe am bi voilà comme ni ngeen koy gis noonu ci image bi dafa tëb ba team ñëpp daal di marqué li nga xamante ne mooy bii boobule moom kii di Seny Dieng ca Angleterre googu la dee tey jii ki nga xamante ne mooy Frank Lampard dafa dal am li nga xamante ne mooy ñaareelu defetam ci ñaari match yoo xam ne joué ko ak Everton mu mel ni Frank Lampard day mel na ni moom saison bi teel naa compliqué lool ci moom ndax équipe boobule kat di Everton am nañuy renfort yoo xam ne dal dinañ euh, ngi biral di topp kii di Gana Gueye Amadou Onana moom signé nañu ko fan yële ba tey jii sax joué dugg na ci li nga xamante dóor ki nga xamante ni mooy Everton bu Frank Lampard mu nekk nag ñaari match euh, ñaari defet mu nekk lu gëj am nag ñii di Everton ubbee seen championnat ci ñaari defet loolu gëjoon na am nee nañu depuis saison 2009 2010 maanaam fukki attaque nangam daal ci la Everton gëj a tegale ñaari defet ci li nga xamante mooy ubbi téeli championnat moo tax kii di Lampard daal fi ne nii mu ngi ci jafe-jafe te saison bi demagul fenn gannaaw loolu ki nga xamante ni nag moom la wax Nicolas Jackson nekk moom itam jeune sénégalais di footballé ci équipe la titulaire la tey jii ci Villarreal ñu koy football seen digganteeg Valladolid ci mu nekk bénu match ci li nga xamanteni moy La Liga voilà ci ñi di wa Villarreal Pula Dia moom mu ngi ci banc bi Nicolas Jackson mom. dafa dal di door li nga xamanteni moy match bi jamono ñuy wax ak yeen jongante gi sax war door diggante Villarreal ak ñi di wa Valladolid mu nekk jongante go xam dinañu gissat ki nga xamanteni moy Nicolas Jackson comme dégg maam jeune bo xamanteni dal ku ñu am ci mom yaakaara ndax gisoon nañ saison passé lég lég ñu may ko chance toujours bu duggé rek day def différence waaye tay mom titulaire la mu melni ni ki di Unai Emery wóolu na boy bi trop voilà ki nga xamante ne mooy Willian Willian nekk ancien joueur Chelsea football club ak Arsenal waxoon nañ leen ay fan ci ginnaaw da jógee foofu la ci Brésil de ci clubam boobu nga xam ne mooy Corinthians dafa war a jóge dafa war a jóge li ko waral nag nee na kayiti xibaar yi ñu ne li tax mu dagg contrat ba nga xamante mooy ay menace de mort te moom nag ne xëy na la a gën a euh, dégg maam fii lee mu ne moom maanaam mu ngi Sikio voilà a war a a yégee ni mu a dégg maam nekkee ci jàqare te ko lu dul ay kii ki ba mu newoon ndax dellu si waat fi nga xamante mooy ci Angleterre bu ñu sukkandekoo ci kayiti xibaar yi Bernardo Silva mi nga xam ne ñu ngi wax ak ak transfert am nga maam daal di jógee foofu la nga xamante ne mooy ca Manchester City Pep Guardiola wax na de wax na tey nee moom kii di Bernardo Silva xam ne li mu bëgg mooy Bernardo Silva daal des ci équipe boobu di Man City voilà moom xam na loolu nee na la boo xam dafa spécial ci moom moom xam na ni nga xam ne noonu la ko bëggee ñoom waa Man City ni ñu bëggee Bernardo Silva ak ni ñu bëggee mu toog nee loolu moom Bernardo Silva ci moo football dal di am victoire bu yaatu seen digganteeg Bournemouth dal di koy dóor 4-0 voilà mu nekk jongante goo xam ne nag victoire bi yaatu lool waaye jongante gi compliqué woon lool ci kii di Erling Haaland li score bi di bari bari moom Erling Haaland match bi mën nañu wax ne li mu laal ci bal bariwul am na kayiti xibaar bu bind ne laal na juróom-ñeenti yoon ci bal bi maanaam bal bi ñëw na ci tànkam juróom-ñeenti yoon waaye nag li gën a temps bi ñëwaatee ci second bi nag maanaam coup d'envoi bi moom moo ko def loolu mooy beneen passe boo xam ne def na ko loolu nag nekk loo xam ne doy waaye Arsenal moom itam daal di am victoire seen diggante ak Leicester City bu Nampalys Mendy 4 buts à la leen Arsenal daal di dóor tey ji voilà mu nekk nag Arsenal di wane ne fi mu ne daal équipe bi mu yor moom tabaarkalla comme ni nga xam ne noonu la ubbee woon ak ndam tey ji amaan na beneen ndam mu nekkoon seen digganteeg Leicester City tënk la woon ci xibaar continuer leen di suivre Sen Sport 221 the best sport news channel